salaamaaleykum suñ mbokk internet yu ñu suivre ci référence actu ñu ngi leen di dalalaat seen émission gan gi tey nag suñu dal suñu gan di professeur Moussa Sow moom docteur la en lettres di jàngale fële nga xamante ne eh, mooy université bu Gaston Berger bu Saint-Louis te it nekk conseil spécial bu directeur bu port docteur ñu ngi lay nuyu. Cissokho euh, ñu ngi lay fay yow ak sa équipe bi nga àndal. professeur Moussa Sow buñ ko doon euh, euh, buñ ko doon définir mooy kan. bon dison que mooy ku def anglais Université Gaston Berger am fa certificat de maîtrise euh, dem États-Unis am fa PhD. Hmm. en études francophones. Euh, jàngale fa quelques années euh, huit ans euh, soog am poste ñibbisi bëgg ñibbisi président Macky Sall gagné en 2012. Mm. Mm. te ñu ko doon jàppale États-Unis nekk mm. aussi nekkoon aussi chargé des cadres de l'APR aux États-Unis ñu am passe-passe ñibbisi jàppale jàppale suñu réew. accompagner aussi président Macky Sall ci ci ndam li ak ci liggéey bi nga xam ne sumb na ko ci ci réew mi yàlla def aussi ma ma am poste université Gaston Berger bi nga xam ne moo ma moo ma yóbbu woon Amérique donc ma ñibbisi nekk université Gaston Berger docteur nga jóge université Gaston Berger dem États-Unis jàng yeggali fa seen njàng jàngale fa ñibbisi au départ mu nekkoon université d'excellence ba nga ñëwee est-ce que excellence boobu fa nga ko fekkaat. waaw disons que bon euh, excellence moom euh, d'abord c'est un travail personnel. Mm-hmm. Euh, dafa am lu bari loo xam ne li laaj na ko euh, ay étudiants yu am yu yu am fula yoo xam ne ñu ngi seen niveau baax na ñu ngi leen di am ba léegi. Mm-hmm. c'est naam nag. Euh, ci fànn yu bëri xëy na euh, niveau yi xaw na wàcc tuuti mais loolu euh, mën naa wax ne ci facteurs yi koy indi yu bëri la. Mm-hmm. donc du boo xoolee Abdoulaye Wade il a def na ay créer na ay. ay lycée yu bëri. mais dafa fàtte aussi am na ay ay. ay ay jéego yu ñu waroon a def ci école primaire yi euh, ba pare soog euh, def ci recrutement enseignants yi mm-hmm. euh, au niveau universitaire aussi créer université naam baax na waaye nga créer aussi ay nga nga recruter ay enseignants yoo xam ni dina dina ratio étudiant enseignant dina dina dina dina dina mel ni mu meloon avant loolu amoon am na solo te xëy na loolu moo moo amul euh, woon euh, en tout cas ci li manqué ci la mm. ci la ci la ci la bokk mën nañu wax ne aussi euh, gab boobu nga xam ne effectivement manqué woon na président Macky Sall recruté na ren ren gi près de deux cent deux cent deux cent enseignants au niveau enseignant chercheur te loolu xëy na dina bokk dina bokk en tout cas ci li nga xam ne dina dina defar njàng mi mais njàng njàng mi ak njàngale mi euh, li li li mu li mu laaj dafa dafa bëri te mm-hmm. ñu nekk aussi dëkk boo xam ne euh, dëkk bu euh, on un pays on est un pays en développement mm-hmm. te nga xam ne lépp urgence la mm-hmm. moo tax sax président Macky Sall bi mu ñëwee gis nga programme yi mu def ay programme d'urgence programme d'urgence programme d'urgence loolu li muy li muy li muy firnde mooy lépp lépp de dafa dafa dañu soxla ñu defar ko euh, tout tout de suite mënul am euh, mais euh, laaj na ñu. ñu mën a ñu yeesal ko voilà. nga jógee fa en tant qu'étudiant ñëwaat fa en tant que professeur. Hmm. c'est vrai que ce statut changé mais université bi lan moo fa changé. université disons que nombre bi xëy na ñun biñ fay njëkk ñëw. Euh, c'est vrai que dugg bi gënoon na strict parce que hmm. ñun euh, c'est principe bi moo nekkoon avoir une moyenne de douze au bac euh, supérieure ou égale à douze euh, pour pour nga mën a pour nga mën a ñëw université Gaston Berger te aussi nga boo ñu ci bari euh, donc dañ daan dañ daan am aussi mention mm-hmm. euh, boo ko seetee loolu aussi avantage bi mooy la plupart des étudiants yi fa daan dem en tout cas ñun ci première génération yi dañuy am bourse te boo boo ñëwee université nag nga am bourse en même temps loolu da day day yombal njàng mi. Mhm. Euh, léegi nag dinañ faral di gis ay étudiants yoo xam ni ñu ngi foofu te yoruñu bourse. Mhm. donc mën nañu aussi voilà day am day am impact ci seen seen qualité. qualité mhm. jàng dañu gis benn kii mooy euh, niveau élève yi étudiants yi ci dañ ko dañuy faral di wax ni dafa ba dafa dafa baax. ça s'est euh, abaissé loolu lan moo ko indi waaw euh, encore une fois xam nga sànq wax naa ci wàdd bi mu ñëwee. Mm-hmm. dafa am euh, xëy na créer an créer na ay université yu mm-hmm. bëri yu yu président Macky Sall mu ngi ñëw di ko yokk mais avantage bi mooy ñu ngi recruter ay enseignants mais base bi dafa am mm-hmm. base boo xam ne xëy na formation bi ñu doon def pour les instituteurs formation bi doon na gën a gudd léegi formation boobu. Euh, pratiquement euh, dañ ko accélérer mais aussi mën nañu comprendre accélération boobu encore une fois parce que dañu nekk ci urgence ñëpp mm-hmm. dañu war a jàng. Mm-hmm. Euh, li gën a am solo xëy na même bu fekkee ne niveau bi xaw na ba mooy ñu fexe ba xale yëpp mën a mën a mën a nekk école. Mhm. Euh, maintenant université aussi da Sénégal dafa am benn esprit boo xam ne képp ku demul université da nga mhm. yaakaar ne pas échoué euh, da nga da nga euh, moo tax président Macky bi mu ñëwee aussi mu créé ay ISEP mhm. les ISEP c'est pour que nga am formation accélérée mu mu mu am métier quoi yow yow waroo université du sa du sa du sa jëmukaay du foofu nga war a dem du sa trajectoire xëy na sa trajectoire mooy nga nekk plombier parce que Euh, mmh. plombier aussi, voilà, métier. Promouvoir un peu les métiers là. Promouvoir les métiers, exactement. C'est pourquoi le, la naissance des ISEP là va résorber une bonne partie de, de, de ces étudiants-là qui, d'habitude, faisaient une année ou deux ans et cartouchaient, Cartouché. et étaient obligés d'être, euh, euh, de retourner chez eux. Mmh. Euh, nous, nga nekk di jàngale waaye nga nekk conseil spécial directeur port waaw conseil technique. conseil technique bi directeur port. Eh, port bi nu mbaa mi parce que nee nañ bokk na si suñu fleuron est-ce que loolu ça existe ba léegi. waaw port moom euh, xam nga port moom dafa dafa dafa am lu ñuy wax un marché captif. Hmm. maanaam euh, boo gisee li li nekk ci ci salon bi yëpp naam am na loo xam ne ci Sénégal lañ ko defaree waaye lépp euh, de lu ci bari dañ koy importer. te boo koy importer du ci avion lay jaar ci euh, ci hmm. ci bateau bi nga koy nga koy dugal sa conteneur nga koy dugal. Hmm. moo tax euh, marché boobu mënul mënul dem feneen ci port bi rek la mën a jaar donc port dafa am ce qu'on un marché captif euh, donc port aussi mu mu am benn liggéey bu am solo mu nekk li ñuy wax xol xolu xolu koom-koomu réew mi hmm. poumon de l'économie Euh, hmm. ba tax na effectivement bu port bi doxee euh, daanaka mën nañu wax ne euh, recette douanières yi parce que recette douanières yi gën a bari. huit cent milliards ba mille milliards de de de ah. de recettes douanières boo naam du douane def na liggéey bu am solo waaye port ci boppam moom mooy créer activité bi. bu activité amul recette douanière du am recette douanière du am waaw donc euh, port bu doxee rek mën nañ naan mën nañ ne euh, koom-koom bi mm. euh, ci de façon générale mais pour pour année bi at bi ñu génn parce que depuis mois de mars presque dëkk bi àdduna bi dafa xaw a tëju waaw est-ce que port yéen au niveau du port euh, vous êtes parvenu à avoir des bénéfices comme ni ngeen ko daan amee depuis la venue du directeur waaw euh, disons que ñu ci profito di euh, di remercier et di nuyu suñu directeur général euh, Aboubacar Sadikh Bey nga xam ni mu ngi def liggéey bu am solo ci ci ci port bi euh, bi mu mu njëkk bi mu ñëwee li ñaari ñaari ñaari structure ñaari réforme la fa la fa dugal muy réduction des charges ba pare augmenter aussi Euh, assiette bi nga xam ne moom moom foofu la ñu war a amee revenu mhm. donc euh, loolu li mu li mu li mu li mu jur mooy euh, mooy bénéfice bénéfice boo xam ne ren bi ñu at bi ñu passé ñu ngi def bénéfice treize milliards naam. Hmm. Euh, malgré Covid bi. malgré Covid bi te boo hmm. boo Covid bi peut-être wàññi na ci secteur maritime bi di di pour cent du trafic. environ mais euh, trafic bi xam nañ ne dina yokk dina gën a yokk il faut nit ñi di lekk dina naan euh, te port mu ngi jublu ci en tout cas ci liggéey boo bu bu bu am solo boo xam ne bi boo xoolee ci ci ci bénéfice bi mooy hmm. ça veut dire que ne. Euh, activité am en tout cas wàññeekuwul mais mu ngi yokk. pratiquement même de onze pour onze pour cent annuellement. annuellement et pour cette année la bi nga xamante ni Covid baa ngi fi ba léegi boo leen ni boo leen ni projeté wu. Mhm. Euh, la fan ngeen fan ngeen xool bu pensez que di ngeen mun a maintenir seen seen développement wala vous serez un peu récession. Hmm. waaw loolu moom mu ngi mu ngi mu ngi aju rek ci ci importation yi te mm-hmm. am nañ yaakaar ne euh, dina stabiliser wu malgré malgré Covid bi même si par ailleurs ñaan nañ yàlla Covid bi quand mu jóge fii. ak mm. vaccin yi di ñëw. Euh, ñuy ku nekk dellu ci sa liggéey. parce mm-hmm. que bu activité koom-koom amul. Euh, forcément dina affecté euh, volume mu trafic mondial et euh, bu ko bu ko affecté aussi affecté volume bi nga xam ne bi mooy ñëw mooy ñëw Sénégal waaye ci li ñu jublu dëgg dëgg dëgg bu ñuy wax waxi port ci ci Sénégal xëy na pooru Ndayane la ñuy wax hmm. loolu moo nga mooy li nga xam ne lii wax dëgg yàlla am na am na solo trop Euh, ci ci ci activité. ci il pare que boobu moo nekk dans l'histoire du Sénégal investissement bu gën a rëy. Mhm. mooy porum Ndayane boobu. waaw huit cent quarante milliards. Euh, kooku dañ ci féliciter peut-être président Macky Sall ci vision parce que président Macky Sall dafa comprendre euh, li secteur maritime ak sous-secteur bi nga xam ne mooy logistique. Mhm. li mu war a indi. Euh, ci ci li mu war a li mu mën a indil Sénégal. Mm-hmm. parce que dañ naan ndakaaru buntu Afrique. Mm-hmm. waa waaye ndakaaru boobu poor bi fa nekk dix huit cent soixante cinq la ko tubaab yi la ko tubaab euh, euh, tabaxoon. Mm-hmm. léegi président Macky ñëw ne poor bi ci biir dëkk bi la nekk dafa congestionné. Euh, camions yi dafa bari mille huit cent camions di dugg ci Dakar. chaque chaque jour Euh, daanaka dafa dafa xat hmm. euh, te ba pare tirant d'eau bi maanaam profondeur bi euh, bu baree bu bari très moins treize mètres la donc yeneen réew yu mel ni yu mel ni Lomé raw ñu parce que ñoom seen profondeur seize mètres ba tax na président Macky ci PSE bi ne le secteur logistique ci PAP 2A bi ci li li li ëpp ci fi fi ñu teg yaakaar pour euh, tirer tirer comme bi mm-hmm. te port bi war a nekk un port moteur de l'émergence mm. ba tax na port Ndayane bu ñëwee incha allah day euh, buñ ko tabaxee profondeur bi moins dix-huit mètres la nee naa la Lomé moins dix moins seize donc euh, dina mën a indi ay bateau yu rëy yoo xam ne yi mm-hmm. lu conteneur yi bateau yi indi conteneur léegi bateau yi fay ñëw double bi lay doon Euh, loolu dina li muy li muy jur mooy day wàññi dina wàññi tuuti njëg bi euh, destination Sénégal dina ci ci wàllu port ak euh, trafic marchandise dina gën a dina dina am hmm. volume bi volume dina wàññi dina wàññi tuuti xëy na ci frais yi hmm. te loolu yëpp en fait dina dina enfin dina yokk koom-koomu Sénégal mais non seulement ñu ñu mu nekk pooru pooru Sénégal parce que Sénégal million millions d'habitants rek la. Mhm. Euh, te ñu nekk buntu Afrique bu ñu nekkee buntu Afrique dañu war a xool. Euh, intérieur bi intérieur mhm. bi nag mooy interland bi. Mhm. Mali 65 pour cent marchandise Mali fii la. lay jaar soxla nañ mu ñu avancer gën a. gën a dem euh, en tout cas le euh, directeur général Aboubacar Sidikh Bèye mu ngi liggéey ci loolu. Mm. ba nga xam ne ñu gën a bu bu raay bi. bu ñu defaree mm. raay bi ñu re ñu. ñu créé ay port sec quoi. Euh, ñu créé ay port sec am nañ déjà les entrepôts. sénégalais au au Mali les enseignements. donc bu ñu bu ñu créé portu Ndayane ñu boole ci waa Mali ñu xool ñoom lu ñu gën a soxla. ñu defal leen ko ci port bu bees bi. Mm-hmm. loolu dina gën a tax waa Mali gën a. gën a gën a jàpp Sénégal ngeen dépassé les soixante cinq pour cent. ñu voilà ñu gagné encore des parts de marché. ñu dépassé euh, soixante euh, <laughs> mais port de Dayane dafa am fu mu nekk fu mu war a jëm nga xamante ni dafa am ay peuple fa dëkk en général ay lébu. Mm-hmm. muy diggante Bargny parce que am na le port de vraquier de de du mm-hmm. jàpp noonu te booy seen même zone bi la. mais les populations boobu impacté ban kii lañ ci war a mun a am lan moo war a njëriñ bi si ñoom nu mu war a demee. waaw je pense que port boo xoolee ay dëkk yu mel ni Rotterdam nga dëkk nga xool dëkk yu mel ni Singapour euh, dina la jox euh, dina la jox euh, idée ci port impact bi muy am. Hmm. comme Sénégal dafa dafa dafa bari dafa am ay effet multiplicateur waxuma la ay ñi ñi nga xam ne dañuy xale yi nekk ci zone boobu yëpp nga xam ne dinañ am opportunité liggéey mm-hmm. waaw am xëy euh, defe naa ne la képp ko képp ku xëy loolu ngay ñaan yàlla ah, am ah. xëy donc xale yi dinañu dinañu am xëy euh, xale yu bari yoo xam ne ci ci zone boobu les peuples de l'eau comme dinañ dinañ ci gis seen bopp. et day dina am aussi ay infrastructures yoo xam ne ay inf euh, infrastructure yoo xam ne dañuy ay école yoo xam ne école de métier la. day day créer ay métiers yu bees. am nañu am nañu pétrole yàlla def na Sénégal am na mu ngi mu ngi mu ngi waaj mu ngi waaj a produire pétrole yooyu yëpp. ay métiers yu bees la yu nar a ñëw yoo xam ne yi dina fa li ñi muy njëkk favoriser mooy ñi nga xam ne ñi ci foofu lañ bi ba ba ba ba Ndayane foofu la foofu lañ dëkkee mais am na beneen côté aussi euh, askan wi foofu dañ koy xaw a ragal mooy l'aspect environnemental est-ce que projet bi jël na lépp en compte euh, euh, xam nga projet huit cent quarante milliards muy presque mille milliards comme première phase hmm. Euh, président Macky Sall rek moo ko fi def en terme d' investissement privé. mooy projet bi mooy mooy financement bu gën a mag. si dans l'histoire du Sénégal mën naa wax ne sax c' est le projet du siècle euh, en terme de en terme d' impact économique en terme de de de génération d' emploi et cetera donc mënuñu def projet mënuñu def lu toll noonu ba pare bañ a def étude étude d' impact environnemental donc lépp loo xam ne lii lu ñu war a def la. Euh, mu mu nekk ci njëriñu njëriñu njëriñu askan bi nekk njëriñu Sénégal je pense que euh, lu euh, directeur général Aboubacar Sadikh Bèye ak équipe liggéey nañ ci liggéey bu am solo boo xam ne bi incha allah dina dina dina dina tenir en compte loolu aspect aspect yooyu mhm. yow yaa ngi dëkk li Daara. Mhm. Daara ci Jolof bokk ci région de Louga. Mhm. est-ce que politiquement yaa ngi fay yëngu. waaw euh, daanaka bi ma ñibbisee ba léegi maa ngi maa ngi yëngu ci euh, ci politique mais nag di di di jàppale di jàppale président Macky mm, Sall parce que. nee naa la sànq bi ma nekkee États-Unis euh, ma euh, nekkoon naa charger des cadre de l'APR bu CCR maa jiite woon CCR bu États-Unis hmm. donc bi ma ñibbisee aussi dama continuer liggéey bi rek naam am na ñu ma fekk ci terrain bi waaye. Hmm. mu continuer aussi di di accompagner hmm. di accompagner. au niveau de Daara yan action nga fay def pour parce que il faut aussi que les. ñi nga xam ne ñooy jàppale président. Mhm. askan wi di jot ci ñoom est-ce que askanu daara ñu ngi jot ci yow. waaw euh, xaw ma ndax déglu nga euh, honorable Ndeye Fatou Guissé maa ngi koy nuyu au passage. Mhm. wax na euh, wax na assemblée li may jot a def foofu waaye mhm. jox jot nañu joxe nañu. joxe nañu joxe naa fa ceeb joxe naa fa ay tonu ceeb ci ci mbas mi ci mbas mi euh, joxe naa aussi ay masque jox naa ko ci moto dowalkatu moto Jakarta yi sax la la la sama mm. jeunes yi ñoom la ñu jox parce que aussi ñu bari dañ leen di xaw a fàtte duñ leen. Euh, duñ mm, leen euh, mm. boole ci dañuy yomb a fàtte parce que ñoom ñooy transporteurs yi. Euh, mais donc distribuer nañ masque ay ay ay masque joxe ay gel aussi ci daara yi. Mm. des produits d'hygiène ci ci daara yu bari ci ci biir daara. Euh, hmm. pour que aussi xale yi fay jànge euh, ñu nekk foofu ci anam bu gën a gën bu gën a set. et ñu ñu moytu ñu moytu mbas mi. est-ce que docteur Moussa Sow euh, jàpp ne walla am na ambition wu nekk un jour maire de Daara Jolof. bon ambition moom ñëpp war a am ambition. Hmm. on peut ambition du délit. Hmm. ñun dal en tout cas ñu ngi ci ginnaaw président Macky Euh, lu mu ñu wax rek loolu la ñuy jëm loolu la ñuy def. Hmm. Euh, ambition nag euh, am nañ ambition mën na du li li ëpp solo mooy xëy na ñi nga bëgg servir ñi nga bëgg servir bëgg nga servir leen. Hmm. waaye nag dañu nekk ci ci ci parti bu tudd APR. Hmm. président Macky Sall jiite ko. lu lépp lu lu mu ñu wax rek incha allah ci ci loolu la ñuy mooy pour l'instant. ñu ñu ngi continuer en tout cas suñuy action suñuy action sociale euh, def nag parce que ñi fa nekk suñu mbokk lañ <laughs> donc lii suñu bo liñ ñu koy def suñu bokk lañ ko defal euh, te pour ñun loolu mooy suñu suñu suñu noonu lañu jàppee politique pour politique taxawal askan bi la surtout nag ci askan boo xam ne bii ak ñoom ak ñoom say mbokk lañ voilà hmm. euh, beneen bi ñu dugg tuuti ci actualité mooy actualité bi defe naa ni Covid moo ci ëpp. Covid. Mm-hmm. deuxième vague bi gis ngeen ni muy def. Mm-hmm. Euh, euh, c'est beaucoup plus meurtrière c'est beaucoup plus même virulent. Mm-hmm. gis nañ léegi Sénégal day bay ay quatre cent cas par jour. mais est-ce que askan wi xam nañ dëgg-dëgg wala xamal nañ dëgg-dëgg. Euh, li ce qui se parce que au-delà feebar bi y a l'aspect économique qui est là y a beaucoup d'aspects qui sont là yoo xam ne war nañ leen jël euh, en compte est-ce que askan bi xamal nañ leen pour ñu bañee rek dugaat parce que président wax na ko waxati ko deuxième vague économique bu tëj ñun antaluñ ko dëgg la waaye euh, dañuy commencer peut-être def historique tuuti ci mbas mi Euh, mbas mi dañuy dañuy dañuy comprendre d'abord que ne euh, musiba la wala balaa la wala euh, en tout cas pandémie la boo xam ne bii adduna bi yëpp la dal mm-hmm. adduna bi yëpp la la mm-hmm. laal maintenant pays boo xam ne bii pays en développement la bu amul doole bu mel ni Sénégal boo gisee taxawaay bi nga xam ne taxaw na ko ci lu ñu dañ koy dañ ci féliciter le président Macky Sall et son gouvernement parce que li mu njëkk def mooy euh, importer ceeb bu bari avant frontières yi tëj parce que xam nga pandémie bu amee ñëpp dañu tiit kenn du xam léegi enfin yenn gouvernement yi dañu tëj seeni seeni frontière ba xam fan la yëf yi jëm mhm. donc euh, président Macky Sall bon commandé ceeb bu bari ak diw ak ay saabu et pour que Euh, ñu sécuriser pour un un un laps de temps déjà néew ji doole ji mën ci jo mën ci mën ci am ci lu ñu jàpp en tendant ñuy organiser wu euh, donc lu yàlla may ñu aussi ñu nawet bu baax boo xam ne bi mm. euh, aussi jàppale na béykat di ba nga xam ne ñu am une production record céréalière comme arachidière mm. donc loolu loolu ci dañ koy dañ koy sant yàlla mais en tant que pays euh, pauvre très endetté euh, li Covid bi révélé mooy que d'abord le, la structure sanitaire et la carte sanitaire du Sénégal dans sa structure elle est résiliente mm-hmm. c'est-à-dire que am nañu ay ay ay docteurs yu xarañ mm-hmm. euh, yoo xam ni yi euh, lépp lu lu ñëw en tout cas ci wàllu wàllu mbas souvent xëy na dañ koy. mais war nañ améliorer structure dañ koy dañ koy waaw amélioration boobu ci la moo tax euh, moo tax ñu xam déjà ku mel ni professeur Seydi xam nga il y a deux ans kenn xamul woon. professeur Seydi ah. boo nekkul ci secteur bi doo xam kan mooy professeur ah, Seydi. Ah, tey xam nañu ay professeur di ay docteur Xemes ay docteur Bousso et cetera. ñooñu ñëpp tey euh, wane nañu seen seen xarañte ci liggéey bi nga xam ne bi moom euh, la leen président dénk. te eh, ñu président eh, jàppale professeur Seydi mu ubbi benn centre de virologie de dimension internationale boo xam ne dina dina dina tax ñu de Ebola bi mu bi mu amee ci ci ci Afrique de l'Ouest aussi Sénégal moo nekkoon ab bi donc plateau médicaux yi certes dañ ko war a dina dina relever te loolu ñu ngi tabax ay hôpitaux yu bees mais euh, li ñu gën a révéla la révélation l'épiphanie si vous voulez mm. mooy que ne Sénégal am na ay docteurs yu xarañ am na un système sanitaire résilient mm. et et kooku dañ koy gërëmee politique yi nga xam ne la politique euh, de santé bi nga xam ne bi moo ñu koy ñu ngi koy ñu ngi koy mm. déroulé di ci féliciter le président de la République mais effectivement mbas mi deuxième vague bi ñun ñëpp ñoo ci war a taxaw ku nekk parce que li mu njëkk laaj mooy cet cet mooy nit ñi bañ a laalante bañ wala euh, saafonte yenn saafonte yi bañ a joxante loxo euh, takk seen i masque bu ñu bu ñuy génn seen kër raxasu bu ñu ñibbisee raxasu et loolu je pense que euh, daf ñuy delloo ci loo xam ne li même suñu diine loolu la ñu sant mm-hmm. c'est vrai que Euh, ku nekk di nga on dans un secteur informel euh, nit ñi il faut ñu génn mënuñu mënuñu def euh, yenn yenn décision yi nga xam ni am na Europe ñaanuñu yàlla mu ñëw. Mm, confinement total moom confinement total ñu ña bu président nee na bu fekkee ne loolu moo loolu la docteur yi laaj aussi loolu la ñu wax loolu moo fi génn mbas bi dina ko def mais. Euh, xam nañ ne aussi ci secteur infor secteur informel bi daf fi daf fi bëri presque quatre vingt pour cent quasiment au niveau du Sénégal donc mm-hmm. il faut nit ñi di génn. Euh, génn boobu nag euh, nit ñi dañu war a aussi déglu li li digle yi nga xam ne moom la waa kër docteur di di digle muy ñu takk seen masque boo paree bañ a joxante loxo bañ a jegeyanto et cetera loolu buñ ko defee yàlla en attendant que COVAX mën ñu euh, système mm. COVAX bi bi nga xam ne moom la. parce que li ñu nee nañ c'est c'est la seule solution vaccination. waaw ñu ngi ñaan yàlla loolu teel a ñëw je pense que ñu ngi ciy liggéey. nee nañ début euh, mars ah. ñu ñu ñu. en mars mars lay jox. waaw man euh, bo yooyu xëy na yaa ci ëpp information. ci côté boobu waaye en tout cas euh, en attendant ñuy ñuy vacciner aussi nit ñi nañu nañu xalaat suñu mag ñi. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñi demuñu dikkuñu. Euh, te nit ñi di dem di leen euh, xale yi di di génn di leen fekk si di leen fekk si ci kër gi. Mhm. donc xale yi lañu war a gën a ñax ñu gën a ñu gën a moytu. comme ça ñu ñu ñu ñu jàppale mag ñi nga xam ne ñoo nekk ci. ci kër yi ci kër yi xam naa docteur li ñu amoon ci ci ci waxtu jeex na dañ lay bàyyi nga sànni sa kàddu bu mujj après ñu soog a tëj waaw xanaa di di leen remercier rek ci euh, seet si bi ngeen ma seet si euh, di di ñaan yàlla aussi ñi nga xam ne euh, mbas bi jëlee nañ jëlee nañ leen fii muy suñu ñu ñu bari ñoo xam ne ñi suñuy xamee lañu suñu ñenn ñi suñuy xarit ñenn ñi ay doomu réew mi ñen ñi ay nit ñoo xam ne ñu am ñu ñu am solo la ñu taxawloon réew mi la maa ngi xalaat ku mel ni Pierre Ndiaye ak ku mel ni. Abdoul Aziz Mbaye euh, ñu lay ñaan yàlla yàlla xaare leen euh, àjjana Euh, te aussi mu mu war a tax nit ñi gën a gën a gën a fagaru mhm. ngir ñun ñëpp ñu mucc en attendant que vaccin yi di ñëw di remercier euh, Mame Gor ak ref euh, nga xam ne sama sama xarit la di di rafetlu seen seen ñëw bi fii di leen di leen di leen gërëm di leen sant ñun ñoo lay remercier docteur Moussa Sow di kontaan bu baax ci dalal bi ak waxtaan bu teey bi suñu mbokk internet yi ñu doon suivre sur référence actu ñu ngi leen di dig daje beneen jotaay ak seen si seen émission gan gi.